li gën a fës kon ci yéen kaay ñuy xëyandool la tribune moom xëy na koppar yi nga xamante ni dañu leen luubal yóbbi leen bitim réew lépp dinañ fexe mu dellu si premier ministre moom moo ko xamle ci yéen bi di la tribune yéen kaay bi di la tam wax na ni Yaya Jammeh moom mi ngi ci tànk yi boom ñetti doomu réew réewum Sénégal ñu condamné à ci ci bi na ci accident bu am benn nit ñàkk na ci bakkanam ñaar fukk ak benn jëlee ci ay gaañu gaañu. ci yoonu euh, Kaolack wi lu aju ci liste 24 yi war a dajaak réem Côte d'Ivoire ci wàllu football Kader Mangane ak Siar Dia ñëw nañu la tribune moom moo ko xamle wax na itam Afrobasket des moins de 18 ans euh, sunu euh, Lionceaux yi qualifié nañu final Le Soleil dellu si ci financement banque mondiale lu toll ci ñaar fukki milliards ak juróom-ñett ngir xeex lii di inondation yi Le Populaire moom dellu si ci juróomi weer gannaaw bi nga xamante ne régime libéral nërmeelu na kalabole yi ana lu ñu doon Abdoulaye Diop ñu gën ko xam ci lay moom dellu na doon mécanicien Babacar Sarr ñu gën ko xam ci gonze moom euh, ci art martial yi la dellu Vieux Guèye moom ma ngay ànd ak euh, Pape Diop euh, ba tey Bessel Ba sam borom kër yéen kaay bi di l'observateur l'Obs moo ko xamle l'observateur itam dellu na ci Euh, kii di ab sourd muet nekkoon ca Kédougou ñàkk ba bakkanam njabootu ci Kouta Sidibé wax ni dinañ yóbbu procureur général euh, fa mbaxara doone menn bennoo wax waxeet moom la ñu jàppee waa bennoo bokk yaakaar ndax Sénat bi dañu noonu du ci démb tey euh, ñëw ñëpp ñuy daw ngir xëccoo kilifte fu Sénat boobu le moo tax tuyéene kaay bi tudde leen bennoo wax waxet Euh, yéenekaay bi di laas euh, moom ne am na ci ay nit ñoo xamante ni teg nañu leen loxo gendarme yi ñoo leen teg loxo doomu réewum France lañu Luxembourg Espagne ak i euh, ay sénégalais nañu nag ñoom dañu bëggoon a dal alal ju tilim toll ci fanweeri milliards ak juróom-ñaar ñu buggoon ko raxasee fii ci réewum Sénégal ngir mu lew waaye sandarme yi gàntal na seenu pexe nañu euh, Pape job nag sandarme yi daañu ko dégluwaat libération moom moo xamle lu ne mel euh, mu aju nag ci yorinu euh, mairie bu Ndakaaru ci jamono yamu ko jiitee lépp Pays au quotidien dellu ci Cheikh Béthio Thioune rappeur bi nii moom taalibe Cheikh Béthio la waaye Cheikh bi dafa nekk ci ab mission lu aju ci peñe mu liis nag chumex doon na xewit eh, ci réewum eh, Sénégal rawatina ci diwaanu Thiès ndax gone yu ci baari eh, ngir ñu sañsa ba rafet dañuy daal di dem peñe mu liis réew mi quotidien moom dellusi ci demuk Macky Sall ci Maroc moom daal ni mu ko jàppee moo di daal am na lu ci ñuul loo nga xamante ni kenn waxu ko ndax buuru Maroc mooy kii dox tànki jàmm ci lu kenn yëgul nag diggante Abdoulaye Wade ak Macky Euh, ñaari euh, ñu doonoon ministre ak ñett ñu doonoon député euh, dàqe nañu leen ci conseil régional bu Kolda Walf Grand Place moom moo xam le mu doon nag gulet ancien ministre bi di Bécaye Diop bokk na ca ñu dàqe ca conseil régional bu Kolda julli kàjjuma imam Massamba Diop moom nag am na ci xutbaam kàddu yu mu yëkki jëmee ko ci imam bu grand mosquée Walf Grand Place moo xamle lu ne mel ci wàllu tàggat yaram Walf Sport dellusi na ci liste sunu gaynde yi war a dañoo ak Côte d'Ivoire nee na Cotonou nag daana ko coupé décalé la def ndax bu ñu xoolee juróom-ñaari olympique ñoo ci nekk ak euh, fukki ancien ak juróom-benn yoo nga xamante ni euh, ñu ngi ci ci wàllu làmb nañu nag Leewtoo wax na bi ñu yamalee cachet yi ci soixante quinze millions bu ñu moytuwul année blanche dina am ci yenn ci ay kàngam yoo nga xamante ni ñu ngi ci làmb ji sunu làmb moom wax ni jamono ji lamb ji dafa pëccuxu ndax promoteurs yi jéngu nañu fitna gi ma nga wéy ba tey seen CNG bi moom gaa yëpp daal ñu ngi koy jóori ay xeer moo tax mu ne pëccuxu dal am na ci làmb ji incha allahu rabbi ci xibaaru digg bëccëg gi ci ni mu gën a yaatoo dinaa ci dellu si ak yéen jaa ngeen jëf ci ànd beeg la première rajo